nañ d'une manière arbitraire dans ce pays nous réclamons leur libération immédiate et sans condition parce que nag ay waay bés bu ñu xamoon li leen di yoot dinañ bàyyi li ñuy yoot parce que man nag maa wax de man maa wax man maa wax quoi keneen waxul je vous merci di nga xam ni Sénégal amul dara lu ci soppeeku ci luñ doon kaas ñoom démb ak barki démb Macky Sall la dem Diomaye ak Sonko ñëw toog du leneen rien n'a changé à l'horizon aujourd'hui nous avons nous vivons une un régime dictatorial fii ci biir réew mi mooy kenn amul droit wax soxlaam kenn amul droit wax xalaatam ñoom su leen neexee ñu saaga ñun suñu neexee duñu wax sañu xalaat doomu aadama buy dundu mu mënul tëj suñu làmmiñ bii parce que lii xew Sénégal dinañ ko wax sénégalais yi. on est à euh, ngay xaar au mais réforme amu ci réforme amul Sénégal réforme amul Sénégal xam tax ma réforme amul Sénégal lépp a été fait en deux mille dix-huit par le gouvernement du président de la République Macky Sall dem les conclusions de la des réformes de la justice cinquante la vous êtes des journalistes allez vous documenter soo leen ma jox document boobu lépp lu ñu war def par rapport à la justice sénégalaise a été écrit depuis par le gouvernement du président de la République ñoom li ñu bëgg def mooy naka la ñuy def pour lekk xaalisu askan bi dialogue assise de la justice boo xamante ni 4 jours 5 jours lay jëm képp koo xamante ni di nga toog ci justice bi dinañ la jox per diem képp koo xamante ni di nga toog ci justice bi dinañ la fay malheureusement on a vu que des gens ont été comme des criminels ont été convoqués dans cette assise. comme qui Clédor Sène. Hmm. Clédor les magistrats des gens qui son des repris de justice ont été convoqués dans cette assise ba pare ñu fàtte les juges les hommes de droit mais dans le texte du président de la République Macky lépp loo xamante ne war nañ ko def les juges ñoo ko parce que ils ont même pensé à mettre en place la haute cour de de loolu loolu loolu soo liiree conclusion yi nga xam ne président Macky Sall dépassé na lii lii ñuy def c'est du dilatoire lii ñuy def af yaxu caaxaan la parce que li ñuy xaar mooy askan bi nee nañ dañoo xiif askanu Sénégal nee nañ lekkatuñu naanatuñu askanu Sénégal nee na courant baa ngi coupé askanu Sénégal nee na woyofal cher na. en conclusion lan ay kàcc la dara amu ci man je parle en connaissance de cause li ñuy wax ci mbirum transaction financière poudre aux yeux la pour taxal Bah par rapport à gis ngeen ci kenn ku ci génn def ci sorti am na ku ci génn dañ koo tuumaal mu génn def ci sorti Bah Diakhaté dafa amoon jàmm ak ñëpp. donc les réquisitions qui ont été faites ne sont pas avérées. mais réquisitions yi ñu war a wax mooy les réquisitions de ce fameux téléphone de Ounkou Sall de de de Ounkou Sonko réquisitions yooyu la ñu war a wax des waaye bu ñu wax loo ah des journalistes ont reçu de l'argent venant de ce parti là nous les connaissons tous bu leen wax loo ah bu leen ñu wax loo. wax loo. dama ci am yi xarit moo tax ñu bëgg noppi ci question boobu mais suñu si continuer sur ces réquisitions nous sortirons les réquisitions du téléphone de Oug Sonko. dama ne. dama ne li ma wax mooy. bu ñu yàq grand boy bu yàkkamti man ngay waxal man ma lu may tiit man jënd naa sama matelas man jënd naa sama laa ba pare sama mer gàddu jënd naa ko ba pare. te ñun ñii ñëpp jënd nañ suñu maire gàddu ba pare bu leen fàtte ni nag ñetti at la ñu def ci opposition jàkkaarloog pouvoir bi lem ko def suñu biir poche miin nañ ko xam nañ nu ñuy xeexee xam nañ nu ñuy déstabiliser un pouvoir te nag nañu def attention par rapport à ce les actes qu'ils sont de poser ce pays là n'appartient pas à ce couple là ce pays là n'appartient pas à ce couple là qui ne dit pas son nom loolu mooy dëgg ñun taxaw nañ tem te nous demandons la libération immédiate de Bah Diakhaté je vous remercie muy Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw muy Bah Diakhaté muy muy keneen képp koo xamante ni jàpp nañ la d'une manière arbitraire dans ce pays nu réclamons leur libération immédiate et sans condition parce que nag waay bos bu ñu xamoon li leen di yoot dinañ bàyyi li ñuy yoot parce que man nag maa yox de man maa wax man maa wax quoi keneen waxul je vous remercie. merci beaucoup jërëjëf jërëjëf merci jërëjëf Adama moom nag moo dafa daan suivre ki nga xam ne moom mooy Bah Diakhaté ah d'accord d'accord nañ ñëw ñu jël leen bon ah, alors dañoo ñëw ci projet Bah Diakhaté ak imam Cheikh Tidiane Ndao waaye dañ ci fekk leneen ñoom nag ay marchand ambulant lañu hmm. waaye tey dañoo amoon procès dañ mujj renvoyé dañ leen di euh, jox kàddu bi bu defee ñu wax exactement lan moo nekkoon seen problème ak kan lañ joteel ba tey ñu ñëw fi nga xam ne mooy ci tribunal ñu waroon leen atte bien avant ñu mujj koo renvoyé euh, salaamaaleykum euh, Dame Badiane la président M6 la Clé développement Sénégal secteur jiite marchand ambulant yi bu ngeen gisee tout récemment rek euh, ma vingt jours ci gannaaw man mii di wax ak yéen lañ jàppoon ngir lan benn conférence de presse mu doon def ñu ne mu doo ko fi defee ñu jàppoon ma defeere ma yàlla def bañ ñu génnee sama éléments yi lañ jàppaatoon tey ñu tey ñu war na ñoo taxaw mais dañ leen a renvoyé waat bala diif bii di ñëw maam ñu ne dañoo tiit ci suñu réew maanaam ñi nga xam ne ñoo fi nekk tey lu ñu waxoon askan ba tax xale yi bàyyi seen lépp ànd ak ñoom jàppale leen ba tax ñu nekk ci réew mi dañoo gis ne lu gën a pire ne la ñuy dund ndax boo gisee ambulants yi tey ñooy ndaw réew mi ndax ñoom président Ousmane daf leen waxoon benn projet boo xam ne da leen koo digoon ñu jàpp ne projet bu ñu fexee ba mu toog dëgg-dëgg ñoom seen coono dina jeex mais dañoo gis ne tey lañ gën a sonn tey lañ gën a am jeefe jafe ndax dafa am loo xam dooñu ko nangu nag ndax ñun ku ñu yàqal ñun la ñuy yàqal ñun la ñuy rey ci mbedd mi ñun la ñuy ñun la ñuy tëj ñun ñun la ñuy dagg suñu cër président bii nekk fi nag maa ngi ko jox àll te démb dem naa Kër Massar. boo xoolee encore bilal bi li muy def foofu kii euh, maire Kër saar bi boo xoolee jafe-jafe yi ñuy dund. bilal Diatta bilal Diatta. démb dem naa fa gis ko wax ak ñoom mais ñi da ngay gis ne bay waxtaan ak ñoom sax da ngay mel ni ñoom du beneen saaru nit lañ quoi. Mhm. te jamono yi nga xam ne ñu ngi soxla réew mi di waxtaan ak ñi waxi ñoon ak ñoom nii. comme ñoom dañoo dañoo war a utal ndaw ñi xëy ñi nga xam ne nag am nañ xay ba pare. Mhm. dëgg-dëgg am na neen noo war a doxalaatee ak ñoom par rapport ak ñëw di fekk leen fi nga nekk rek nga sakkaas leen nee naa ko yow comme yaay autorité locale bi fii nii. te ne ñoom fuñ laal baaxul. te yow yaa yor seen xilifon baa ngaa ñëw di yëkkati ak événement bi nii ak ak lu xam nit doomu aadama xamee nu mel ak li ci xew boo leen yëkkati war ngaa mën a wut foo leen dugal wala au moins sax nga may leen ba tabaski gi passé nga wut foo leen récensé dugal leen fa mais mënoo toog ba heure bi ñëpp di xalaat noo war a régler sa problème mu tabaski nga bëgg ñëw di yëkkati ay nit yoo xamante koo ko mhm. ko gën a pire moo fi nekk ndax dañu lu neex waaye def ko wax ñu tëj mhm. bi leen yëkkati jot ngeen sommation wala ñun jotuñ benn sommation tey boo ñëwoon patal seen tey y' a quatre mois ci gannaaw préfet bii nga xam ne moo fi nekk di préfet Dakar bi jël nañ suñu bagage yëpp ko ci àllu yeen bi kon la lu mu gàtt gàtt ëpp na soixante millions nekk fay na douze mille francs door ko di jëli te ba ñuy dem bagage yi bëri saaw na fii ñuy wax ak yéen nii ñi nga am suñu bagage yoo xam ne commissaire bii di xarit moo ko ramassé yóbbu ko kenn xamul fan la ko yóbbu trois mois ci gannaaw maa ngi def benn interview ci gannaaw ma ne su fekkee état Sénégal dafa euh, wate loi boo xam dañ mi nañ la def comme jaaykat doroog nañ nañ ko xam waaye mënuñoo jàpp ñu bagage yóbbu ko mënoo xam fu bagage yi nekk te mënuñu ko wax te kuñ jàpp defeer la indi la mel ni koo xam ne te am na ñu gën a nekk délinquant ci réew mi te waxuñ ci ñoom dara man loolu moo ñuy jaaxal léegi Sénégal dañoo toll foo xam ne gor yi la ñuy toroxal wayu yi ñu bàyyi leen ñuy lëmbee ci réew mi ci ñu leen neexee jàpp naa loolu dafa war a jeex lu ñuy sàkku ci njiiti réew mi ñun am nañ solution xam nga nit booy revendiquer mm-hmm. day fekk nga am bi ñu laajee nga xam li nga war a wax ñun dañoo am ay solution yoo xam ne état bi fi nekk fekkee déglu nañu mu nangoo déglu ñu wax danañ régler problème mu secteur informel bi di mën a lépp dina jeex na mais 60 pour cent yi moom mën naa wàññeeku baax a baax a baax loolu rek la ci ñoom na waxtaan ak secteur bii nii ndax secteur informel bi ñooy Sénégal ndax amul benn kër gooy dem ci réew mi te doo fekk doomam nekk ci terrain bi di yaxantu te ñii ñoo yor ñii ci àll bi kon état bi fi nekk na bàyyi xel ñii tabaski gi lañ jëm nañ dimbali nit ñi bàyyi leen ba tabaski paase ñu xool yan solution la ñuy def pour génne leen ci jafe-jafe yi nga xam ne ci lañ nekk. maa ngi koy wax sànq euh, naam